exécutif bu forum civil daal dina examiner question yi nga xamante ne dafa jëm ci procédure de redressement fiscaux ci liñ ci nemmeeku nag moo ko société yu bëri dañoo engagé wu ci litige d'intérêt public bureau bi daal di ci lim Eiffage Philip Morris Ericsson Sénégal Sabadola Gold Opération ci bataaxal bi ñu fësal bureau exécutif bu forum civil daal di xamle ne que boo ngay topp mbiru entreprise yi di Eiffage Philippe Maurice Grand Moulin de Dakar ak Ericsson Sénégal ñi nga xamante ne jamono ji seen mbir moo ngi ci loxo yoon waaye nag mu daal di xam ne que nemmeeku nañ ay paiements cumulés yu bëri gël def te nag koppar gi ëpp juróom ñeenti milliards francs CFA te nag mu jëm ci ay redressements fiscaux ci rapport ITIE bu 2021 ci bile déclaration bureau bi daal di rafetlu initiative bu Guy Marius Sagna jëloon daal di rek bind ab bataaxal jëmle ko ci président de l'Assemblée nationale ngir ñu ubbi ab commission d'enquête parlementaire ba mën a xam lan moo tax gouvernement bu Sénégal daal di jagleel lépp téeméeri milliards de cadeau fiscal te mu jëmle ko ci EGO te nag bureau bi moo ngay encourager agent wu administration fiscale ñu gën a rekk dëgëral seen liggéey ba mën a leeral askan wi lu jëm ci bile mbir ci communiqué bi forum civil di ci ñaawlu itam tekkaaral bi nga xamante ne ministre di finance et du budget daal dina ko noppi ci mbir mi bureau exécutif bu forum civil daal dina dénoncé arrangement fiscaux yu bëri ñi nga xamante ne entreprise yi am nañ ko te nag ñu ngay woo nguur gi mu gën a xoolaat bu baax négociation clause contractuelle yi mooy amal diggante mag yi les entreprises